pervers, finalement, quoi. Mais j'aimerais le mal est profond. Le mal est profond. Mais j'aimerais pourquoi j'aimerais ne parle jamais de la santé Pourquoi j'aimerais ne parle jamais euh, de l'injustice sociale que nous subissons Pourquoi j'aimerais ne parle jamais de Macky Mais pourquoi j'aimerais ne parle jamais de l'éducation nationale mais Jamra tu bu vu bu ne mais Jamra mais Jamra mais Jamra mais trop sexuel Jamra Jamra parle-nous de la santé interpelle le président mais Jamra parle-nous de l'éducation interpelle le président monsieur Jamra hey Jamra parle-nous des hôpitaux Jamra Jamra parle-nous de, la police, de la justice, Djamra, du pouvoir exécutif, M. Jamra. Vous voulez dire que nga wax rek ay al mon père quand même un peu de sérieux mon père ween TAT, bun gu oh mais monsieur Jamra sois un peu sérieux quand même sois un peu sérieux monsieur Jamra al mahtar ni lay xaar ci leneen parle du président de ñuy jàpp di leen toroxal parle de la prison monsieur Jamra oh monsieur Jamra tu deviens pervers monsieur Jamra monsieur Jamra on t'a jamais entendu parler de de Guy Sanya, M. Djamra. Les enfants de la rue, M. Djamra. Guy Sanya, incarcéré en prison. Mais Djamra, tu parles que de sexe. yow dans balaa tu jóg rek ab ab ab taat feeñ wala ab sullu feeñ wala ab ah Jamra le mal est profond le mal est profond yow daal ci caga rek nga jang yow sa sa diplôme yëpp ci cagatu cagatu sa cagatu la nek monsieur jambra Makhtar gay sois sois un peu sérieux père sois un peu sérieux quand même le mal est profond le metti ni di sori na ngir yalla jappal ni touti maintenant je t'entends parler mais Jamra trois dossiers la yor foo ko laajee rek mu ne waaw Wally Seck bu mu solee tiset bi dama ne Wally sekk yëre bi nga sol yére góor jigéen la mu ne déedéet père xaw ma ko woon yére bu tiset bu rafet la ma ne kon baal leen ko waaw après bu ñu paree loolu noonu man Jamra may xeex man bu ma xeexee queen queen biis xaw ma lan lu mu tudd keneen ka waaw dafa soloon affaire yu gàtt dem show of the year bu mu fa demee sol lu gàtt la mën ma ne ko waroo ko sol mu ne ma waa ah a ah, ah, kon per juum naa kat ah, a xaaral may sol mël fa léegi nag zipp bu mu soloon mujj na mujj ci sol mël fa waaw moo kon nag xam ni beneen combat gagné nañ ko waa léegi nag kan la rangu rangu day jaay caga dinaa ko woon ni caga baaxul fii caga caga caga caga caga mais tu as que trois dossiers gi Marius Sagna moom du sa dossier quoi Fallou Galas moom du sa dossier bokkoo ci quoi taalibe yi nag mom moom moom doo ci wax hôpitaux yi nag nañuy toroxalee nit yi ñuy dee ci ci lalu pas ci lalu hôpital yi ci couloir hôpital yi moom moom moom bokkoo ci quoi yow éducation bi nag moom bokkoo ci Jamra sexualité rek yow sexualité rek yow xanaa da nga foog ni ñun seen problème bi yëpp sexualité la oh Jamra toi sérieux waay père baay baal caaxaar waay sa trois dossiers ku wax nga génne sa trois dossiers yooyu baal fontu yi waay yow tamit ñun caaxaanuñ waay ñun sexualité tardé luñu te xam nga ni réew mi lu ko tardel du sexualité pauvreté moo waral sexualité la pauvreté c'est la pire des vices pauvreté boo xoolee ñi nekk ci tagat ji yëpp seen baay yi yoruñ seen yaay yi yoruñ pauvre Ici des quartiers pauvres des ghettos seen baay seen baay lekkuñu dañuy dañuy cagatu pour mun a jox seen baay lu mu lekk di cagatu pour jox seen yaay yi ñu lekk parce que lekkuñu naanuñu ici des ghettos kon donc da ngay Jamra jógal xeex pétrole bi gaz bi mais Jamra jógal xeex pauvreté bi mais Jamra jógal xeex santé ah mais Jamra sois sérieux waay baal caaxaani waay maa la koy wax nag baal caaxaani rangu Jamra jógaat gëj naa ko dégg Jamra gëjoon naa ko dégg ci Waly Seck ci setam ba 15 ans la Jamra jógaat encore Jamra daal moom day toog rek moom moom daal ab taat lay bañ a gis daal wala silib bu feeñ wala weeñ bu feeñ yoonam new ci nag lu koy indi nu mu koy juree moom yoonam new ci moom jéemul xool le moom daal affaire bu ñëwee rek ñu ne ah ab ah, ah, xob bu bon la dañ ko war a kii te ay benn benn ay benn bennal day benn bennal quoi mais lu mu tuddati rangu mais kii kan la mun a soppi mais rangu comme ça sa yaaya jurul lu bax rek rangu kan le meuna soppi quoi rangu moy kan tu en fais un dossier spécial de rangu rangu rangu mais mais qui rangu mais rangu c'est mais rangu du même ce n'est même pas une goutte d'eau dans la mare rangu mais il faut voir ce rangu là il vient d'où quels sont lan mo yóbbu rangu ci don rangu lan mo créé rangu lutax rangu mujj mel mais c'est la pauvreté ñepp ñi ngay gis ci li melni ci quartier pauvre lañ nek ci ay famille pauvre lañ ko rangu kan la mëna influencer un rangu ben ab xalé bo xamni wax mais lan la mëna yak yàq kan rangu ku mu sa yaay ba dangaa baaxul quoi rangu mënul yàq kenn ku yàqu rangu rangu rangu man dama xamul ko il vient d'où elle vient d'où elle vient d'où mais rangu yow Jamra nga jël yow dem bu fuñ la déggee détail la Jamra les choses sérieuses doo ci mus a impliqué wu Jamra yow fuñ la déggee rek ay weenam yi taat rangu rangu ku muy rangu rangu mooy tu en fais un dossier. des majors, tu en fais un dossier Des majors, bu avez ci benn concert sol sexe sexy dafa tax kenn le la tu en fais un dossier mais parle-nous des les racines du mal lan moo waral l'eau monsieur Jamra hmm? et tu reçois des millions comme financement mais vous le déggee Absolument ab à ngay ay famille pauvre lañ nekk lekk ñu naan ñu mu war a lijjanti war a xeex pauvreté war a xeex injustice war a xeex la mais jaam jamra foo ko déggee rek ci ab mbir lay ab ab ñoo xam dañu am ay trouble psychologique lay lay lay lay lay lay wax ay benn benn bennal ñu am ay trouble psychologique ñu am pauvreté ñun ñun rangu daf ñoo jaaxal mais xanaa jamra moom balaa wax ci rangu wax ci suñu fecckat yi nga xam ni chaque jour ñu gis seen sili bi ñun caapa mbaaco mbaaco tas na fi di caapa mbaaco ñëw ñu ma dégguma la Jamra xanaa boobu da la rëcc caapa mbaaco bi tas na ci dëkk bi di foo nekkoon hmm? ndey ndaag ndey géy ayda patra ayda dada ayda paccal ayda suqu ayda sulux mbalax ayda ndey géy guddi town ajaa jàllo ajaa ajaa yow tamit ay subvention ngeen di jot mais ñun càpp mbaaco bi yow <laughs> alors père foo ci toll fàng na fàng la def ci biti de ñëpp a ci jot mu mucc sax di saboté waat na photographe photo ma photographe maa tey maa tey mënul leen ma dara sama paacoo sama sama sama sama caapa la maa ko moom lu ma neex laa ci def foo mujj nag yow père foo mujj ba léegi dégguñu la ci caapa mbaaco bi de ñun gis nañ fi Mbaaco gis nañ fi Aïda Dada gis nañ fi Aïda Patara gis nañ fi Aïda Paccal sax am na Sénégal Aïda Paccal Ndeye Gueye guddi town ajaa Diallo sulu yërim sekk bi nag fàng la fi def sulu yërim sekk viol bi yow xanaa doo ci wax Jamra loo wax ci yërim nag moom mi fëq moom mi fëq euh, zizi xam nga bu dee xam nga lu yàlla wax kay te yàlla moom nee na nit bu dévierge nit day mel ni nga ay ay ay lu mu tudd ay juma yo yoo màbbal te yow nga gis fi Yérim Seck violé bi xale bu ndaw alors ay ñoom nday ndaag waaye dimbala ñu waaye yow yoo tamit baal font yi peer sa caaxaan yi sa caaxaan Jamra foo ko déggee ay mbirum cagatu rek lay wax cagatu waxal ci lu am solo lan moo war a ñoom ñuy doon cagga loolu nga war a wax lu war lu leen def cagga ñoom lu leen def cagga système bi leen def cagga pauvreté bu leen appauvrir def leen cagga ñoom nga war wax waxoo ci kenn ci nday Guèye kenn déggu la ci nday Ndaak kenn déggu la ci Aïda Patra kenn déggu la ci Aïda Diallo kenn déggu la ci Aïda Dada kenn déggu la ci Aïda Paccal kenn déggu bu ñu sonal waay bu ñu sonal caaxaan rek ngeen di def ñoom ñëpp a yem caaxaan rek ngeen di def avec la complicité des médias avec la complicité des médias demal waxal média bi média Les aida faut Dada faut Aida Aïda Patra foo faut Aïda Paccal aida Aïda faut que aida faut Aïda Aïda Diallo euh, avec la complicité des médias alors va dire ça aux médias nous ñu promouvoir

des médias kon nag vraiment dimbalañu quoi yow yow yow Jamra dimbalañu dimbalañu dëkk boo xam dafa yomb yóbbaale fëq moo leen di yóbbu comme ay xob ngelaw bu ñëw yóbbu leen seen petit gàlle doo ci wax yow Jamra kenn du la dégg ci ay problème yoo xam ne mun na laa indil problème ay problème yu dëgg yu sérieux yi doo ci wax mukk ngay dem tànn ay benn nit benn ràng koo xam munul influencer kenn seen kër sax mënu ko influencer seen kër gu mu bàyyeekoo sax munul influencer ñooñu indi ay yi gën a garaaw ngay bàyyi fecckatu sabar yi fecckatu clip yi génn seen kii ndarpaan ni mum jox ko sénégalais gars yi di ci ñi hmm, média bi di former ay genre star yoo xam ni amuñu benn vergogne duñ sax rus hmm? doo leen ci wax nga war a lijjanti lu gën a am problème buy metti nga war a xool lu gën a garaaw ci problème nga lijjanti ko doo ko def de ngay jàpp ay genre victime ay victime ay rangu ay victime lañ xamuñu sax lu ñuy def ay victime yoo xam ne démb la ñuy def yëfu dof tey ñu ñëw taxaw di baalu maa ngi jéggalu baale xam nga ni ko ay victime lañ après suba nag nga ne am nga victoire ndax benn rangu nga kepp fële ndax benn DS major nga kepp fee sois sérieux Jamra sois sérieux nga génn xaalis bi ñu lay financé financement yi ONG yi di finance ay ONG yi ñuy ngeen yore ay millions ay millions di képp ay ay victimes yoo xam ne xamuñu dara ay psychologiquement dañoo malade ngeen koy bëgg a def xeex loolu du xeex xam nga la mal le mal ay profond demal nga lijjanti ji ko. li nga caaxaan trop yow père maa la ko wax nag maa la ko wax man Mollah Morgun dëgg ma tax a jóg yow xam nga dëgg rek la ñuy wax ñu lay tàgg ak lay tàccu man bokk ma ci arrête. Sénégal lal moo fi ne soit nga bu dee nga bëgg a amul fit rek soit jaayal fit soit reewande soit vulgaire soit nga caga-cagalu soit nga bandi bandilu ino Alex bandi bandilu ñu ñu jël leen teg leen ci kanam nga jaay reewande siiw senegal ngay jaay fit waa dinaa ko dinaa bombarder palais bi dinaa danga na nga jaay fit yaa yaay jiite boo reewee yaay jiite boo vulgaire yaay jiite boo booy caga cagalu yaay jiite booy bandi bandilu nga siw tu deviens star rapidement tu deviens star rapidement au Sénégal bandi bandilu yor discours banditisme bandi bandilu star réewande star vulgarité star caga cagalu star et tu deviens héros man qui qui qui Angleterre démb Londres suñu jigéen boobu noonu kooku mooy héros lii moo amoon ci américains yi buñ ñëwee Irak il fa discours ak fen ben irakien bu kenn xamul moo jël dàll bi dàll bi yéen a ngi fàttali ko lool rek tëmbal ko président bi bum américain yi bañ téye ko fa ko ci suuf yéen a fàttali dàll la tëmbal dàll bum américain bu doon discours ñëw suñu dëkk yàq ko bombardé ko ñëwaat bëgg fee yor discours dàll dàllam la summi déclenché ko ay irakien comme moom ñoom ñoo ko jël xot ko ci suuf bombardé ko kii ko waaw Bush la tëmbaloon euh, dàll bi ma rappelle Bush George Bush mu fa ñëwee di fen yàq dëkk jàmbur sàcc pétrole ba ñëwaat fa taxawaat dëmm rey la jaale la lekk sa rango ñu maam un journaliste irakien merci beaucoup un journaliste irakien jël dàll tëmbal ko bouche moom la démb sénégalaise bi def fële ca Angleterre Londres ay sénégalais président ba ñëw fa taxaw yore discours di fen di sóob di teg ab jigéen taxaw na ko libéré Guy Marius libéré ay sénégalais ni moom jël ko xot jël yóbbu ci biir dóor génne ko dóor saax-saaxe ko kooku laa mun a woowee héros man kooku héros la ci man kooku moo mérité publication kooku moo mérité publicité parce que fu kenn xaarul fu président bi nek ña fa nekk ñëpp quatre ils sont à la solde du président dañ leen a fay jox leen xaalis ñi yor seeni portable lan lañ leen sante comme ay animaux taccu leen yuuxu leen taccu leen yuuxu leen est-ce que jeureujeuf mu ñew dugg nga fekk gàngooru gaynde nga dugg seen biir gaynde gi di wax gaynde di taccu nga ne gaynde bayul dul ta nga libérer doomu jambour bi sa dee xajoon na ci sa kaso xajoon na ci mun nañ la faat lu ne mun nañ lañ la ko def ab jigéen taxaw Sénégal moo tax ma ne le vrais combattants sont à l'extérieur les vrais combattants man maa wax loolu Macky sàll di wax kooku taxaw da ko yuuxu ko ab jigéen baatu jigéen di jib billaay wallaay jigéen yee jàmbaar macha allah yéenay gor yéenay jàmbar yéen jigéen Sénégal man yéen laa gën a gëm de jigéen taxaw libéré Guy Marius nga dégg baat bi ndeysaan wax na ba sididee jeex libéré Guy Marius libéré Guy Marius lépp ñu jël ko ay ay góor yàlla jël ko bëm bëm saasaaxe génne dóor ba néewil bëtam ndeysaan te pourtant bokk ak dara gi Guy gi Guy du baayam du yaayam du nijaayam du du daraam sénégalais rek lambda ñu fekk ko foofu génne ko dóor ko saax saaxe ko ndeysaan ci libéré Guy Marius mu wax la président bi kese ay moroomu sénégalais góor jàpp dóor ba néewil bët ba ak beneen góor tamit ñu dóor ko ba néewil bët bi kooku mooy héros kooku moo mérité ay publication kooku moo mérité tey ñu yeewu fekk ñëpp bind ci turu jigéen boobu man sax xaw ma turam déjà gars les gens ne parlent même pas d'elle ils n'ont même pas honte de parler man celle mérite des applaudissements héros héroïne l'histoire retiendra Coco héroïne il mérite des applaudissements il mérite elle mérite des applaudissements elle mérite des applaudissements elle mérite des félicitations des congratulations ay nitu Macky Sall saax saaxee ko dóor ko ba bët bi néew te kenn ci yéen xamul turam moo tax man ma gëm diaspora bi billaay wallaay maa xam lu tax ma gëm diaspora bi ma xam vrai xeex bi vrai xeex bi diaspora ko yor te ma xam ni vrai nit yu ànd de bonne foi yoo xam ni dara jóg taxu leen jóg du trahison du mafia du dil du nax nax sénégalais yi ñi ñooñu gëm ni ñi ngi diaspora bi quoi ñu gën a gëm réew mi gën a bëgg réew mi mi ngi ci diaspora bi ñoo gën a bëgg réew réew mi sax moo leen tax a dem buñ bëggoon lu yomb dañuy toog parce que lijjanti sa bopp yomb na mais boo demee bay dem parce que njaboot ngay yor parce que ay famille ngay yor vraiment merci ñu ne ci diaspora bi merci waa diaspora bi encore une fois seen xeex loyal na gis nañ ko bu ngeen jógee ne Sonko

merci Jasper bi c'est grâce à vous que Gaïdi yi c'est grâce à vous gars comprendre c'est grâce à vous merci beaucoup elle s'appelle Maya Kamara. chers camarades Maya Kamara, si mérité na mérité ko parce que l'homme def dafa journaliste irakien le président George Bush Maya Kamara mérite na non dañ ma wax ma message elle s'appelle Maya Kamara mais yo yaa mais yo non mais non Alvin yo ya ah elle s'appelle Maya Kamara après tu es sûr qu'elle s'appelle ainsi comprendre ma de copain Ya mo xni Maya Camara la tuddi ba mu commencé Maya Camara nga ñaat na ma est-ce qu'elle s'appelle Maya Camara gars jappale len ma koku dañ ko wara xam jiji def len live wax len ci Maya Camara koku moy héros koku moy héroïne koku moy combattant mo def lu journaliste irakien bi def jël dalam ci conférence de conférence George Bush président George Bush mu tëmbal ko dalam, Maya Camara ci boppam président bi wax mu yuuxu foofu ak baatam yëpp corde vocale am yëpp libéré Guy Marius ba président bi dégg ko tiit def nii président bi tiit def nii damn vraiment Maya Camara merci Maya Camara je vous félicite et je vous encourage Maya Camara ca kaw ca kanam yow laa gëm de yow laa gëm de yow laa xam ne sa xeex sa vrai xeex la xeex bu dëggu la vraiment Maya Camara yàlla na la yàlla may gudd fan yàlla na la yàlla may wér yàlla na la yàlla sàmm ñi la toroxal démb dóor la néewil say bët ak yooyu yàlla na yàlla nañ ko gis balaa ñoo dee yàlla nañ ko gis ba ci seeni njaboot yàlla nañ ko gis yàlla leen yàlla toroxal yow Maya Camara yow yaay suñu Nathalie Yamb félicitations félicitations et du courage yee yàlla mi ngi ak yow sénégalais yëpp a ngi ak yow sénégalais yëpp ñi ngi ak yow yow yaay jàmbaar yow yow yaay guerrière yow Guy Marius Sagna la gore Maya Camara Guy Marius Sagna gënu la gore pale président la dem nga yow nga jàkkaarloog président yow gàllu ko ko ne ko libéré Guy Marius yow Maya mérité nga ay félicitations yow Guy buñ ne Guy Marius Maya ak Guy Marius euh, ñoom ñooy ñoom ñooy jeunesse sénégalaise bi ñoom ñooy guerrier bi ak guerrière bi ñaar Sénégal tey bu ne année bi dañuy félicité wala dañuy joxe dañuy joxe ay raaya raaya góor Guy Marius Sagna la raaya jigéen Maya Camara félicitation Félicitations Maya Kamara, la guerrière, la combattante. Vraiment, machallah. allah <laughs> a été tabassée, sax-saxé ko, dóor ko ba néewil bët bi ndeysaan buñ ko génnee ci biti. Libéré Guy Marius, libéré Guy Marius, libéré Guy. Oh, eh, ma ne wow Sénégal ndagara am nay gor ah ndagara am na gor yu dund ba léegi ah macha allah. yalla la Maya Ya mérité taxaw ci kanam yow yow les vrais combattants de ñoo lank ñoo bañ de ar luñu bañ ar Babylone les vrais combattants ñi les vrais combattants les vrais soldats ñi ngi ñi Sénégal bu de dañuy Sénégal combattants à part Guy Maya ci kanam ñu ñeneen ñëpp diaspora bi la après jël ñu nekk Sénégal sànni leen ci ginnaaw ñu topp ñu ci diaspora bi macha allah félicitation Maya Camara na ko gars yi félicité waaye leen ko waay sama gaay yi leen ko moom laa doon tëjee waaw. léegi nag mooy lu ma Maya Aline Cité Diatta kamara Camara yille yaay jàmbaar de villa yaay gor yow lañ war a publicité mais nooy def moment bu nga xamni da ngeen di def ñambar ñu war publicité amna ñi nax sénégalais feulé fële ñaa libéré ñee ñee naan ay ñu tuddi rangu rangu rangu rangu rangu yu dul jeex ay rangu ay nit yo xamni vient de nulle part ici des familles pauvres màggee ci ay quartier pauvre am problème joindre les deux bouts di organiser sen ko ñu ay sabar ay fuural ay hein ay éducation ratée scolarité échouée mujj ci mbedd mi Hmm? doon ay rajo kankan seen koñ yi for ay information bara après média bi jékkati leen fal leen def leen ay genre superstar yooyu superstar après golo gi mel ni Jamra taxawaat na naa ay xeex par benn benn non Maya noo non kan la yow Jamra nga waroon mel ni Maya Camara defoo ko ñu sonna ak ay ay pep nit ay espèce yu pepp nit dañuy <laughs> sonnal ak ay espèce yu ay rangoog suba nga dem song ji bàngu suba nga seen songi mboqum lijjantiwoo sax les racines di mal jéemoo cee faj li li leen di defi caga xam nga ko yow te jéemoo ko lijjanti waaye da ngay xaar ba ab cag buy dox wala wala buy caka-cakalu rek nga jóg taxaw bu ko def sa politique say financement yëpp ci loolu nga koy lewalee waaye arrête waay mal gouvernance bi nag yow kañ nga ciy wax éducation bi santé bi scolarité bi nag mal gouvernance moo appauvrir nit yi ñàkk leen appauvrir lekk ñu naanuñu am na ñu ñu ci nooy bopp dañuy dem cago ci dañuy dem cago ci mbayang camara ah ñu naan ko maya mbayan kamara ah xaaral ma jàppale jamra tuuti bala ma dem jamra jamra xam nga luñ naan les ra la racine du mal ou bien les racines du mal damal nga lijjantiku lu tax ñii nekk ay bandi ñii nekk caga ñi nekk ay kasara loolu yëpp am na lu koy waral loolu la ñu woowee les racines di mal boo ko fajee rek dootoo dégg caga yi mooy la mal gouvernance waaye waaye Jamra fexeel ñu lay dégg ci ngay wax la mal ngay wax ci mal gouvernance parce que mal gouvernance bëri na ñum soppi caga waay waay waay waay waay Jamra jógal nga wax ci suñu éducation ñàkkum njàng mi ak njàng mu bon bi loolu moo tax ñu bëri teel a bàyyi ñi ngay gis ñi yëpp jànguñu seen xam-xam soriwut hmm? jàppale ñu nga wax ci éducation bi nga wax ci santé bi nga wax ci scolarité bi nga ñak ci nga wax ci l'emploi des jeunes parce que ñak liggéey mo waral li lepp ñom ñep dem ci télé bi ku nekk bëgg def sa bop star def ko liggéey wut ci ay visa ay affaire ak et cetera ubbil sen sen bop borom alal yi ñu leen di teudé parce que ñak mo waral bëpp xétu vice donc Jamra ngir yalla del wax ci mal gouvernance del wax ci éducation del wax ci santé del wax ci scolarité del wax ci l'emploi des jeunes del wax ci agression del wax mais yow silib a gis tu bu nga taxaw ay Jamra sois sérieux un peu quoi sois sérieux essayez de voir lan la racine du mal La racine waral yenn xale yi di bëgg affaire lan waral c'est la pauvreté ne savons nañ Nous ñi la wax ni yëpp la wax ni yëpp la wax ay euh, ay Aïda Patra issue d'une famille pauvre Aïda Dada issue d'une famille pauvre Aïda Pachal issue d'une famille pauvre Ndeye Gueye Goody Town issue d'une famille pauvre Ndeye Ndak issue d'une famille pauvre Adja Diallo Thiès issue d'une famille pauvre Oumou Sow la complicité des médias ñu doon ay star ci vulgarité ci caga tu loolu mo waral ñu mën leena xam ci toj sen sein yi genn ko ci biti ci sol yu yarax ñi gi sen tadi ci bëgg a wane seen bëgg woné té lepp dañ koy monter donc avec la complicité des médias ñu bëgg am dara ñom tamit ñu bëgg am wéccet parce que koo ci laaj amul kenn ku ci nekk ci ñi ma la sital nii euh, famille yu aisé ku am famille bu aisé du def lii donc ñi ñëpp ay pauvre lañ seen i parents pauvre seen gouvernement appauvrir euh, seen i parents ñoom ñu pauvre ñi am na ku ma ne sax rango da doon jaay ndox am na ku ma xam star koo xam ni maa ko ci koñ bi lu mu doon def ay sabar la doon tëggalu ay affaire yooyu noonu tey star la ci télé yi la mu koy gis te pourtant billahi wallahi wa taala seen kër dañ doon am sax problème pour taaj añ wala pour taaj reer barke rasulullah taaj añ taaj reer koo xam ne mu xam maa ko yar nekk star ci tele yi rangu ak ñi ngay gis ni yëpp amul kenn koo xam ni papa millionaire la ñëpp ay pauvre lañ seen éducation raté seen scolarité raté ñu mujj ci mbedd yi taxawaalu taxaw defar ñu ñeer rafet nga ñu defaru seen kii dem ci télé yi promouvoir ma promouvoir leen mais ñoom la donc xam nga les racines du mal Jamra yow laay waxal de sois un peu sérieux quand même Jamra bu ñu la xamee ba léegi ñetti dossier nga yor boo waxul góor jigéen yi góor jigéen boo xam ne yow doo génn mukk sax tur góor jigéen góor jigéen yi bëri nañ Sénégal góor jigéen yi yor naa dossier bi yor nga dossier bi xam nga ñaata góor jigéen a fa ne génne ko lu la ko teree génne kon dafa am ay intouchable quoi ñu gën a mën a yàq suñ suñu askan doo leen jege yow non bëgguma wax tur bi quoi lañ moo xam nga rek bëgguma wax turam dañ ma ko ñaan quoi ñoom ñëpp koo ci xool am na ko ko indi ci média bi média bee leen di siwal et puis amuñu benn ñooñu sax mënuñu influencer kenn mais c'est que dama bëgg wax Jamra quoi Jamra soit sérieux Jamra parle des choses yi nga xamni ne duggal ñi ci Jamra ma lay dégg nga naan yor nga liste gor jigéen yi yor nga liste mouvement gor association Jamra bu dé da ngay xex lu jaarul yoon ay siliba intéressé ak ay caleçon légui wax ni gor liste bi parce que yalla si boppam sax moom gor donc bul suturaal góor jigéen yow Jamra dangay xeex jàpp ay rangoog ay DS major ay ñetti nit ak ñaari nit toroxal leen te dem ci conférence de presse bàyyi Waly Seck te nga naan Waly Seck nee na tayu ko xamu ko woon yow yow da ngay gérer ay kumba am ndey ak ay kumba amul nday kay léegi wax ñu góor jigéen yi nga ne yor nga seen liste Jamra man moo laa mërgën maay wax ak yow père nee nga da yor liste góor jigéen yi ak association góor jigéen yi ne ci Sénégal lan moo la tere publicité ko gars yi xam ko xeex ko bu dee da ngay xeex lu jaarul yoon parce que yàlla ci boppam moom caaxaaneewul góor jigéen donc lu tax nga yor list bi yor dossier bi yor ñi fi yor ay récépissé góor jigéen te ne ci réew mi te nga koy wax lu tax lu la ko teree génne loolu laa la laaj Jamra bi dégg nga ci laay xam ne yow ku dëggu nga ko lu ngay wax dëggu na ci yow génnal ñu liste góor jigéen yi ak liste récépissé ñi ñi gouvernement bi jox récépissé te nekk ay association góor jigéen ci réew mi génneel ñu ko yow ak sa association ak say financement tamit déjà yow ko lay financer lolou moy 1 2 nga lijeenti la waral ñi nek di ciaga ciagalo ko bëgg ciaga ciagalo pour pour am ay promo lolou moy 2 manam les racines du mal après nag nga ñëw wax ñu lu am fulla man moo tax jéem ma ne fi def spécial rangu rangu rangu non rangu dara rangu benn rek rangu victime la rek rangu munul influencer kenn seen biir kër sax rangu ñaari rangu amu fa donc ku munul influencer seen biir kër no influencer mbedd mi ñaari rangu amul seen biir kër gars ñoo koy promouvoir nii rek ci te rangu rangu rangu man dama xool ah kii ma ne innocente la dama xool photo bi rek ne kii innocente la ma dem sama yoon parce que duma ma nekk jël sama live spécial nag ay rangu ay rangu ay rangu innocent la rangu xamul sax nu àdduna di doxee rangu tey boo ko newoon tey demal nga ne rangu lan mooy impérialisme demal nga ne ko lan mooy impérialiste demal nga ne rangu lan mooy impérialiste dama laajal ma <laughs> rangu lan kan mooy kan mooy George Soros lan mooy New World Order demal nga laaj ko rangu nouvel ordre mondial rangoon boobaa da lay tax lay lay la laa waay waay ay da dadaa ay da patra nday ndaak wuy nday gay parce que ñooñu la donc kii victime la rek pauvreté moo ko def lii c'est la pire des vices te mënul influencer kenn donc passez tournez la page tournez la page wax leen am fulla Jamra yow laay waxal waxal am fulla waxal ci mal gouvernance bi waxal ci gouvernement muy buñ jàppee nit ndax injustice jàpp ay ñoom Guy Marius nga wax ci yow yow yow Jamra del wax ci ñoom Guy Marius Sagna del wax ci injustice del wax ci taalibe yi del waxal publier liste góor jigéen yi nga ne yor nga ko publier ko ay victime ngay jàpp rek di leen toroxal ak gi ay victime c'est pas sérieux quoi non réew mi non réew mi sérieux doxu fi nag xool naa ba xool waaye réew mi ah No, but ne peut rien de sérieux dans ce